parce que ñàkk ab yar gi metti na trop lool parce que yow boo ko dégloo sax sun sonu ñi journaliste yi borom site yëpp bu ñuy laaj da ngay dégg yeneen booy fete ginnaaw di saaga di saaga te yow yu wóor na ki saaga mën na mën na laa jur su ngeen demee da ngeen koy wax loolu. mais man dégg naa booy ñaa mu ne li ngeen def defoo leen ko def parce que yéen a toccee otoom range bi mu nee na ñetti otoom